din واكفنا سلالا ورد لنا جنا وشيطاني اللهم وكملا كل ما ننغو ونفسده وهب لنا كل ما ورد لنا كل ذي ساب وذي أران ويصيران كل ذي تسيري اللام تولنا غفرانا لاغق لنا بدانا وابلنا رأيت دربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا سيما من كل مهلكات ونجينا من بالا يا دهر يا الله وافة أخات مغشة يعني زلزالات شدات والفقر يا الله إهانة خلة مغزلة خلب وفخات فتاس والجوه اللام وفنات والوبا وخرخما قراخ والمرخما قتراخ والقادي اللام حرر وبرد ونخ بالكربة انحقام دلالة فرج والخم اللام وعامة وخطا يا دلة سلال والمسخ والخسخ ثم الخسف اللام وخلة محجنون لا مرد ثم الجذامين ونقشين يلهو ومن خبية الدنيا ثم آخرة ومن فدائهما يا الله يا الله يا من مزوجة سالو خش بديني يلاو وكل ميسر لنا من سرس عساد مقصر فام وسر الهين يلاو وسر سخر وسر الخلق إنسهم مخجني وسواتي سمي الله أنا جهلتك hindal mamati mahan imani yalaw sabit yaqini fi qalbi bila wajalin hatta uhibba li kal haqq yalaw walij'al al mawtara hatin wa mafraqatan min kulli sarrin wa karbin da khayalaw wa fasli al jazma yasruqu farqana في الخبر لا تبلي خد على وكن سيري هني زين ما دفنوا جسمي فسرت ويدا سمي الله لا ترمم أنا ما غير ما غير نج والدتي امين يا الله واغفر لنا ولغ وسر خائبنا وتف بنا وبي غافر اولياء الله عنها تجاوز وإيانا ارحمنا فما لنا سواك وأنت البر يا الله فبلغ ما غفر وبكلاب الوقف ندي الله لا تتبالى بما لذت بقدرتين ولا تخايب رجافك يا الله وأدخنا ماءها من معي كوسري من اخترته من جميع خلق يا الله من كان يسد ساخين ويخلق ساخ كفر ويسر من يخساك يا اللهم محمد المسك الأخيار خائدنا لجنة الخلد يوم الأسر يا اللهم فالدك لا إله إلا الله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 bañ a faal dootuñ daamoo si saaxal Seex Faal baayu góor sa faal dootuñ daamoo alay lay faal illa laa abo soxna balla maam njaay abo daar daar faal njaga laa ilaaha illallaah يا من ما سلا ودم من الماء ودم بين الماء ودم بين الماء يوتيني ينجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 njiin mañ daan njiin may rasool tey ma laa njiinum buur njiin mañ daan njiin may rasool tey ma laa njiinum góor njiin mañ daan njiin may rasool Cheikh Ibra Faal ngëm ga landina moo tax mu dëddu àdduna na Cheikh Bamba sotti na wàcci na aljanay Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall mm, yaayam saxanci may sa biigi Kumba Fall Cheikh Ibra Fall ngëm nga moo tax mu dëddu aduna fekki na Cheikh Bamba sotti na aljanay texe yaa yóbbu mbaaxaan ca xafoor yaa tax ba xol ba dootul fuur yow yaa tax mu sani ya tunguur foofu ya tungam di laaj pexe Cheikh Ibra Faal innaka Cheikh Ibra Faal baaburida baabaa baaburida baaburida yey na ko faal nax jubam moom la nuy misaal mbate mu doon sax nax jubam yow la nu jébbal sunuy mbir su bis baay faal la nu jébbal sunuy mbir su bis baa yow la nu jébbal sunuy mbir su bis baay faal njaga faral sunuy bàkkaar te war nu seex bamba yaay ñag bi seex bamba ñag murid yi faal waaye du la ñag yàq ko faw ndaxte yaa moom róoy iñaan day lekk lu baax ni sawara di lakke mat man de soppu naa may sa biige kumba faal waa axlu baay faal yéen bàkku leen a bàkku ndax raw ngeen ta am ngeen ndam li ngeen doon ngir seeni jëf yàlla ak yonent ba mbég nañ ca mbég mu bamba Cheikh Ibra Faal ngir seeni jëf yàlla ak yonent bi mbég nañ ca mbég mu bamba Cheikh Ibra Faal nag waaju xamul na xam ni lu Cheikh Bamba bég mu bég ca moom lii la daane mag ñi fekkoon kër sëriñ bu mag ba moo tax ba ñëpp xam cëram ca Bamba lu Cheikh Bamba wax mu daa di wax lu Cheikh Bamba aaye mu daa di bàyyi nib yonen bu dégg aaye loo ci xamul faal njaga noppam ya mos la déglu leen ndigal lu dul ndigal lu bawoo ci bàyyi fallu loo ci xamul tànkam ya mos la jéego jëm ci lenn lu dul ndigal kenn du moom du kenn Cheikh Bamba ko jiital waaju ko jiital jiito ah. te ku ko neenal neen ginnaaw ba faf juutu loolu moo tax ma teel nangu jóg jiital ko waaju ko deful moom laa yërëm tiital ko ma jóg kañ waaja daa way ngeen gi yon nen ba yon nen fal ko muy xut bu boroomam li tax way wi wolof waroon di yaaramoo damaanar gaa yi jàngul xam boromam ma nettali fi jaloore te sulli fi ay ndam te waxar baax yu tax ngeen xam boromam te xëj yi yàlla fële ñoom xam nu maqaamam samaam xar baax yaa ak may yaa xam boromam ca yu ak ca xaw su yaag ña fa diiwaat ca xutbu ya ak ña daa wetal boroomam ña xam yàlla ak ña xam yoneen baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam te wax ji Seex Bamba moo ko wax bi ko noon bi yo booy faal ku di nga wax ji moo juyoog boroomam ca géej ga la Bamba daqee saytaane ki gaayam su noon ba dan maag Seex Bamba taxaw faratay boroomam ca géej ga la bamba moomi mbuutum kun ci baatin su bi fa bekkanum bamba ni kun boromam ca géej ga la bamba tijjee ndam xam-xam ba faf yore ali way xalim ba àgg ci yàlla àgg ci ngën gi yoon neen soppi ko soppi léppam muy boromam jërëjëf ñoo ngi jégalu bu baax barkeb sëñ Touba yàlla dogal na ni bi nu fekk fi sëñ bi rek doy na sëkk waaye dañoo santaat sëñ Touba ci sàkku gi mu sàkku ñu jàngal ko xasaayid yi ndax jàng xasida neex na lool waaye bu la ko sëñ Touba def la wee lay gën a neex moo tax mag ñi njàng sëñ Touba toog ak bu fi sëñ Touba nekkul du ñu yem moo taxoon mag ñi amoon gërëmalu sëriñ bi seen njàng du yem ak njàngum leneen ndax ñun suñuy jàng sax mën nañ ci am luñ ci séentoo yooyu waaye ñoom gis sëñ Touba gi moo leen dàqal lépp moo tax sëñ bi ñu ngi lay ñaanal sa borom guddal sa fan sant nañ bu baax it ci bi nu ñëwee rek nga def loo ñu ko ndax dama dégg ci mag ñi am benn kilifa gu waxoon yaakaar naa sëñ Cheikh Mbacke la dañuy xasida ndëndum buur la nee na kenn du ko tëggal baadoo la kon alhamdulilah bi ñëwee rek nga jëfloo ñu ko yal na yàlla guddal sa fan yaag mboolem ñi nga am ñëpp kontaan nañ lool. barke sëñ Touba ñu ngi ziar sunu sëriñ bii toog moom nga xam ne di sëtu maam Cheikh Ibra du suñ lépp kon ñu ngi jégalu bu baax a baax. ni fi say sasin man jaadali bi salabin wa baadu suuli xaadali bayatuhu fi bi xalami كما بحيسس أزال ألمي يسر لي في تيسس وكسسي وخاد لي جساؤه في أكسسي يسر لي في تيسس وكسسي وخاد لي جساؤه في أكسسي عن النفا في أكسس عداه نفيا به لا زمن هداه أكرمني في بكسس إكرام منا له البرايا والفعال وزمن للملأ الأعلى ما بكرمي قد زهدوا في جكسس في إليها مجكسة قد غادا فوق مرادي كامنا فانغادا غيب زن كل من عاداني في دكسس وبالهدى هداني رد الذين قد خلوني ترى في دكسس لما يجر درا رد الذين قد خلوني درا في دكسس لما يجر درا طيب عمر الله زت باخي مسقاد لي منه من الصباح أحمدنا صلاح عليه الله أحمد الدر والجزاء الله بان لكل من له سعاده أن النبي لي خاد خرخلاد صلاة من له البقاء والخدم على أبي القاسم صاحب الخدم فرعت من تسره أقلامي مسليا عليه بالسلام رد الذي خلق أو يخلق إلى سواي كل در ينور إذا لربي عنت الوجوه فللجنان من علي توجيه أسير مع الأبرار Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee